luñ doon tiit suñu borom def na léegi dana jeex pasca parce que jëf day toxal wax jëf day toxal wax te président Macky Sall jëf la xam du wax ju bëri liggéey bii nga xam ni monsieur le ministre dana ko tey muy dragage ak balisage yu bël bi yaakaar naa ni nit ñi doxoon nañu mënul nekk parce que tellement dañ koy yàgg di wax te mosuñu ci def dara lii lu am solo la bu amee nag il faut que ñu gërëmee que président de la république parce que ku gërëmul yàlla yaakaaruma si nga gërëm nit te ku lay indil solution say coono mu koy wàññi say jafe-jafe mu koy wàññi say tiitaange mu koy wàññi kooku ku jar gërëm la waaye président wàccul dafa am ñu mu yónni bël bii Oumar Gueye dox na ci moo ko tàmbali le ministre Oumar Gueye moo ko tàmbali ku ko ku toppoon ci moom muy Aminata Mbengue Ndiaye dox na ci waaye ci loxo Alioune Ndoye mii la suñ borom def moo ko sottil xëy na keneen bu ñëwoon du ko mën a sottil waaye suñ borom moo tànn ni àll Ndoye moo koy sottil suñ borom def na soo soobee suñ borom sotti na Macky Sall mi nga xam ni tàll naka ba def ko ministère de la pêche loolu dañ naan juumul ndax bi yàlla suñu borom dogalee mu toog li mu jëkk def mooy doomu Gendar lay jëkk a mu recevoir nu ministère nu ànd dem fa ñun ñëpp daanee toog loolu nekk lu rëy bi loolu yëpp weesoo nu mëbët ga bindal ga mémorandum ni ko bël bi ak licence de pêche yi mu ni licence yi comme moo jëkk nekk priorité kon loolu danaa si dox une semaine la teg mu dem Mauritanie ñu doon ñaan trois mois mu ñëw indil nu un an kon kooku ameel nan ko cant ak ngërëm ren ku nekk gis na ni campagne bii nu génn campagne bi baaxul si mool yi defe naa ni li mu si dox ba li si Mauritanie maye de licence de pêche yooyu moo tax kër gu nekk ren tabaski dëgg la wala déet bël bi nag bi ñu ko si waxee mu ni moom loolu du si wax tànk amul si lu mu téye mu nekk nit boo xamante nii dee leen gëstu ay problème te di ko topp te xam ne lu mu la wax lu nekk rek noonu la bi muy soog a am li nga xam ne mën na ko askan wi moo tax mu indil nu lii nga xamante combat nan ko 17 ans yoo xamante di def ay sortie di def ay marche di def lépp te lii rek nañ si jógoon ngir ak bakkanu mool yi man ñoom kon loolu am na solo ba tax monsieur ministre loolu dañ lay ñaanal lépp loo xamante nii sumba nga si pes bi yàlla na suñu yi barom kàttanal la dooleel la ba mébét bi nga xam ni pour moderniser pes bi pour teg ko si condition yoo xam ni condition yu normal la ak ni nga yëkkatee sa noppa jox ko acteurs yi di wax ak ñoom guddi di wax ak ñoom bëccëg ñuy sant suñu borom nag mu may ñu tey ci ndimbal président la république ñu koy gërëm te bég naa bi may déggee ngeen gërëm mu may ñu tey ñuy lancer liggéey bi liggéey bi war a jël ñetti weer ak genn wàll may wax samay xarit waa Cek ñetti weer ak genn wàll amul bis bu ci tegu bi mu fi naan salaamaaleykum da ngeen ma am nañ problème ak Mauritanie problème ba am na ay licence yu ñu fayuloon troisième trimestre troisième trimestre ban période la ñu ne parce que du ngeen napp période boobu parce que xam ngeen lu tax ci te période bobu la ñu génn nii ñu naan ressource amul kon bo ay ati ati at xëy na ba Sénégal nekkee 3 millions d' habitants xëy na amuñu koon waaye tey mu nekk 16 millions 700 mille habitants ak li ci tegu forcément la ressource n'est pas la même kon loolu la ñu faj Mauritanie ci ndimbal président de la République ak diggante bu rattax ak président de la république islamique de Mauritanie seen maire doon na sànq seen syndicaliste wax na ci loo xam ne bu ma ko waxee téléphone dama ko ne monsieur ministre man dootuma ci wax xëy na loolu moo tax fi ne nii moom damaa poñe ci mbooloo waaw loolu loolu la def loolu ma ko waxoon nag foog naa ne yéen ñi acteur Ndar man de ci bët wax naa leen ko fii ci chambre de commerce parce que il faut ngeen jàppale il faut ngeen dimbali pour ñu dëgëral li ngeen nekk tey Sénégal yéen yéen rek yéen yeneen napp Mauritanie di ñibbi seen i dëkk di fa débarquer te xam ngeen ko am na loo ne bu ñu ko sàmmul ragal naa danañ dem ba loolu dootuñu ko am te day metti kon bu ci kanamee danaa gën a ñu waxtaan ci loolu mais ñu li am parce que il faut ñu bu ñu jàppalantewul liñ bëgg day jafe te pourtant yomb na parce que la ñu Mauritanie defal pour man jàppoon naa ni wàccoon nañu ñoom Mauritanie yokk na suñuy licence 400 cent woon mu jox ñu 500 lépp fii la 15 euros lañ daan fay la tonne président Macky Sall toujours ci dimbal leen ne cinq 5 euros yi maa koy jël muy 250 000 euros par année ngeen fay 10 euros yi muy 500 000 euros par année loolu it indi jafe-jafe. bañ fa mujjee ak président de la république Macky Sall mu obtenir fa Mauritanie léegi dootu leen fay kon ñu dem nappi Mauritanie ak ay capacité yu ñu yokk ba pare ñu léegi dootu leen fay la nga leen fay démb te muy jafe-jafe kon nag bu ñu yabalee ay agent ñu ñëw fii ñun ñu dalal leen ñooy fay fa ñu dëkk ñooy fay seen déplacement ñu dëkk ak yéen na bàyyi leen mbengeen yi jaañeen yi di jël lépp doxal leen teraanga yi Ndar et Sénégal xam nga may nañ ñu fanweer ak juróom ñett gaal en fibre de verre pour que ñu jox ko CLPA bu ne équipé ko pour que CLPA ñu yombal itam seen liggéey de surveillance et cetera te loolu da koy da koy yombal boo jëlee gaal gi moteur bi yéen a ko wax dañ koy subventionné acteur individuel wala GIE ci Sénégal ci benn secteur boo xam ne ñu naan dañ lay subventionné am un million gi bëgg naa ngeen wax ma ban secteur la amul ci gerte ci mbay amul fenn te damay dégg yenn saa yi nag yi yu jàkkaarloog tele ne ñun góor gi defaluñu dara loolu nag moom xam naa ni waaw ak jéyeen yeeg yooyu ñooy def lii waaye am déet ah carburant bi bi ngay utiliser état di ko subventionné hors taxe hors douane lu mu na 8 milliards état dana ko ci def paral loolu ndimbal gilet bi nga xam ne dañoo bëgg sa sécurité ñu aar ko état bi di la ko jox 2500 francs yéen ñëpp xam ngeen lu gilet moo sécurité à mer di jàpp loolu nimbal bu rëy la quasiment may la chaque année ñu dugal ci environ 20 mille di nuyu acteurs yi ak seen i organisation lim naa fi caps mi alun tiam mu jaral ko jaral ko mu jaral ko mu yabal ay nit ndakaaru ba fii pour wane ni napp gi ñëpp ay mbokk lañ ñëpp benn lañ may rafetlu seen taxawaay ñëw fekk fi nag ah waa URPAS ak yeneen kuréel yépp waaye nag gis naa ni photo président bi moo dàq sama bos mais ñeme ñemewuma wax leneen mais di len gërëm ci seen taxaway di nuyu ñoo dem ci Sénégal tambalé ba ñu ngi leen gis suñu ku honorable conseiller au conseil Thierno Mbeng ku melna général Jimi Ndiaye ci Sénégal ak Thierno Mbeng ku ci yor sa organisation nationale au niveau national ñuy rafetlu seen taxaway ci suñu ci li président la bi muy bël bi mu mu mu jël bël bi defar ko ba xam ne ni benn doomu Guet Ndar dootu ci faatu loolu tey jii le ministre Aly Ndoye ñëwoon doon teg xeer bi ne liggéey bi bëgg na balaa am trois mois liggéey boobu mu pare ba xam ne ni waxu bël moom kenn dootu ko waxati Sénégal loolu la ba amee vraiment ñu ngi ci gërëm ministre Aly di ci gërëm président de la République ñaari yoon ndax ma ne ndax ma gërëm président bi ñaari yoon mooy confiance bi ma amaat ba delloo ko Aly Ndoye

Euh, moo li waxaat dama benn tawat boo xam ne itam nee ma bëgg nañu euh, bor yi xam ne nañ ko am ndar itam euh, ministre bi jàppale leen ba ban ban may loolu nag ñu ngi lancé appel la République ak ministre la pêche xam ne situation yi dafa métti ak fer bi ñu jóge suñ ci mën a jàpp gouvernement Mauritanie jàppale waat leen ndax yàgg na leen jàppale ba xam ne loolu lañ ko mën a maye. waaw di gërëm Alioune Thiam rek ndax Alioune Thiam taxawaayam dafa nekk lu am solo acteur de la pêche dafa génn alalam génn temps génn ay nitam.

Ah, mu ñëwoon tey mu def fi ay ati at mu ñëw tey pour fexe dindil leen ko ci trois mois et demi ñu fexe résoudre problème boobu ba mu des suñu ginnaaw bi mu ko waxee lancé ko boo toogee ci ginnaaw mag ñi fa newoon ak góor ñeeg jigéen ñi ñëpp a ngi sant yàlla di ko sant li ci tegu muy monsieur le président son excellence président Macky

Alioune Thiam président des armateurs du Sénégal ah ndeysaan taxawaayam ci secteur bi ñun ñëpp gis nañ ko te bëgg nañ ci mu ngi ciy def ay mu ngi liggéeyal président de la république di Macky Sall ci ginnaawam mu ngi liggéeyal ministre Alioune Ndoye ci ginnaawam mu yëg mbaa mu ñàkk a yëg ñun ñoo ko koy yëgalee fu mu toog mba fu mu toogul lu mu waroon a def ci secteur bi Alioune Thiam Alioune caam mu ngi koy def di ko ko liggéeyal liggéeyin bu rafet mooy. secteur de la pêche bi yëpp daa mel ni amatul xaar ma yàlla ñoom ñëpp boole na leen benn buum ak benn bureau ñoom ñëpp ñuy nas di waxtaan di diisoo di yëkkatindoo di tegandoo te nee na la ko gënal nag alalam bu mu am mu bokk kook secteur bi te da koo wax ni may wax ji dafa niroog jëfam ndax ñëw gii ñu ñëw ndar moom mobiliser ay kaar mobiliser ay góor ak jigéen ñoom ñu ñëw ñu ñëw mu yor suñu dépense dala ñu otel diggante ba ñu yegg see reer ndekki ba añ loxoom jógu ci

ak 800 millions la président yëkkati ñu def ko ay masjid ak ay ay ay sec ci CNCA man mii maa bokkoon ci ñu doon bind ñu séddale ko fi ay gratuite 2 milliards 800. président bi mu faral léegi ñëw na ndar juróom benn yoon recevoir na leen ca palais ba ñaari yoon loolu yaakaar naa ni wane na ni waa ndar ak président Macky Sall benn lañu xam naa ne waa Gën Ndar na waa Gën Ndar Gën Ndar nag bëgg ko mooy bëgg Sénégal parce que li tax mooy bëgg Sénégal mooy fii ci secteur de la pêche day exemple parce que ñun ñi nga xam ne ay mareyeur di jën a jaay xam nañ solos ndar xam ndax tey ndax rek nga indi sa oto doo yor benn dërëm ñu jox la ay jën nga dem jaay ba ñëw fay am sa bénéfice def ci sa poche. loolu dañ ci sant yàlla rek di ci gërëm tamit président de la république Macky Sall bon ñun nag euh, ñëw nañu fii tey euh, ànd ci ak euh, waa président di kap Aliou Thiam ànd ci aussi ak présidente de femme marière bu por Adja Fatou Faye ànd aussi ak Djibi Ndiaye général ànd aussi ak président Thierno Mbengue ànd aussi ak staffu Aline Thiam muy euh, Babacar Diouf ak euh, Souleymane sen ak euh, Babacar Diop ànd aussi ak ñoom Talibé Cheikh ak jigéen ñi marier yëpp ñoom Adja Faturé vraiment tey por amul ku des marché central amul ku des acteurs port yëpp dañu nañu ndar pour li nga xam ne ni mooy bël bi nga xam ne ni ministère yëpp bëggoon nañ mu réussir ci seen loxo yàlla dogal ci loxol Alioune ñu ngi gërëm suñu président ma Macky Sall di gërëm suñu ministre Alioune Ndoye di ñaanal suñu directeur Alioune Thiam ne moom ku baax la ku gore la ku mën a jàppale doomu aadama ku nangoo liggéey te liggéey rek moo ko ñor lii mu def nii démb ba léegi ñu ngi fi jóge dakaar ñëw fi mu loger ñu hôtel euh, def financement bi suñu reer suñu ndekki suñu añ suñu lépp dara manqué ak suñu argent de poche ñu koy ñaanal lii mu mébét yal na ko ko yàlla àggaleel si barke Seydina Mohamed. il fallait que ñu wax ndax ku toll ni Alioune Thiam ak lim ci dépensé ci xaalis ak délégation bu mag bi mu indi fii ñu ñëw ñu bëgg a xañ délégation mu wax loolu moo taxoon ma jël parole bi xëccoo ko ban jox ma ko moo wax wax juré yi ma wax ci port ba ndax Alioune Thiam daf ko jar waa port yi ñoom ñoo ko wax. Euh, Fatou Ndoye ma ko jëkk wax biig ni man noo mën a def na nga jël micro bi wax ci Alioune Thiam ndax lim ni jàppale ci port bi kenn mus koo jàppale. ñun ñëpp ñu àndandoo nekk fii ci Ndar di jàppale Thiam ci nga xamante ni mom la ko fi ministre bi indee ñun nag dañoo kontaan trop trop ba nga xamante ne ni mënuñoo sax wax ba nga xamante ni mënuñoo wax macha allah parce que Thiam mi ngi ñu dalal mi ngi ñu yóbbu ci hôtel bu cher dalal ñu fa sunu dara ul wul démb ba tey fi la wante sunu dara ul. wul ñun nag ñoo ngi koy ñaanal li mu dugal ni di ko yalla yàlla na ko yàlla eggale. ndaxte Thiam moo ñu déplacé indi ñu Ndar te ku ne de te ku nekk xam ne ne déplacement dafa seer cham lim ñu déplacé jàppale ministre bi ci liggéeyam moo tax ba caam déplacé ñu indi ñu fii caam nag dafa nekk ak ñun ca port ba di jàppale marieri, yi jàppale jeunesse bi cham amul kumu mu jàppalewul ca port semence bi amon port cham moo ko wàññi jeexul de mais cham moo ko wàññi ba mu des tuuti bu ko ci lii muy def yàlla def mu continuer di benn chômage dootul am port. donc nag euh, li may sànni ci lii mooy que maa ngi remercier monsieur Thiam mi nga xamante ne tey grâce à moom moo ñu indi fii tey pour ñu ñëw ànd ak délégation bi ministre bi indaale fii di ko remercier bu baax ci liggéey bi di ko si jàppale lu mu ci bëgg yàlla ko ci yàlla defal ñun daal waa port ñun ñoo ngi koy gërëm di ko sant ñoo ngi ci ginnaawam ci ci lépp nag pare nañ tout pour jàppale ko pour liggéey moom. di sant nag aussi suñu xarit Alioune Thiam bi nga xam ne tey wax dëgg yàlla moo ñu yombal ñëw bi fii ci Ndar parce que tey bu loon Alioune Thiam tey ñu bari teew nañ fi duñ fi mën a teew parce que Ndar ak Ndakaaru dafa soreñe te ku ne xam ne ne moyen moo fi indi nit te ku ne xam ne jamono bi neexul moom mu sacrifié boppam génne xaalis teg ay kaar jël ay tisat jël lépp ni acca kaay leen ngeen dem Ndar teew ci ministre de la pes dara ñu ne lu may boole acteurs yëpp ñu nekk benn ñu suñu jigéen ñu baax ñi kenn desul